alors bu ñu dissoudre assemblée. mais bu ñu dissoudre assemblée ñu dem élection parce que loi bi li wax dans les soixante quatre vingt dix jours il faut organiser des élections on va aller aux élections mais c' est quoi le problème. amul leneen même je pense que warul leen war vous n'êtes pas naïf au point de croire que. Euh, gars yi dinañu bàyyi assemblée bi continuer may mun a pour pour pour plusieurs raisons euh, parce que gars yi bëgg xam naa ne dinañu bëgg a là on en vient à la reddition des comptes dinañu bëgg a taxawal haute cour de haute cour de justice mm-hmm. euh, dinañu bëgg a dindi immunité peut-être euh, yenn yenn yenn député yi mm-hmm. walla Diouf Bodian a annoncé la la la la la couleur j'espère que waa APR naay fu ñu au point de penser que dinañu bàyyi assemblée bi continuer la preuve pour ton information bu ñu dissoudre assemblée amul kenn ko amat immunité donc loolu moom féete na boor muy benn beneen bi mooy may mun a wooy wooy ni ñu dissoudre nga déggoo li ma nee naa ñun saraxuñu ñaanuñu mandat suñu dissoudre assemblée nationale ñu demaat ci askan wi wuti ay député ñëwaat assemblée nationale lii da la li waa naan lii mooy dëgg bi amul leneen ñun on est pas là pour quémander quoi que ce soit la preuve on est en train de se remobiliser de remobiliser notre parti et de préparer un peu un peu les échanges mel ni ñu ragal ay poursuites ah non attends non may mun a nag kaay da ngeen may mun a may mun a ragal ay poursuites non may mun a c'est qu'il faut a pas de remobilisation may mun a may mun a votre parti il est mais mu ne il faut nga xam ne il faut nga xam ne on vient non attends déglu ma on vient on vient d'élection le pouvoir n'a même pas encore fait deux mois ñun duñu ay ñun may mun a on a fait douze ans à la tête de ce pays may mun a kenn du defar réew ba pare di ko yàq ñun kuy xaar ci ñun yàq réew mi bu yeboo nga dem feneen muy benn beneen bi mooy aujourd'hui on est à l'étape des évaluations la preuve ñi demoon Dakar dem nañ def deux régions ce week-end on va faire six régions pour faire des tournées aller voir no militants aller voir nos responsables waxtaan ak ñoom je pense que loolu lañuy ñuy xaar ci parti politique pour que mu dem def évaluation waxtaan